Heavyweight.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 pëttëlaw waa ji def ñaawteef ji nag mu ngi wuyoo ci turu dee njaay di ab maraîcher foofa ca bayaax fi mu ne nag yoon mu ngi koy topp ci wàllum tentative d'assassinat wolof di ko wax bëgg a rey nit ak acte de barbarie deekaa di soxna si ñu dagg ñaari loxo yi nee ñu ab veuve la jëkkëram génn àddina gannaaw si si la gisanteeg dee njaay dal di bëggante ak moom dee njaay di ko defal lu ne tey nee nañu ñoom ñaar ñooñu ñoo bokk benn kër bu ñu dëkk meloon ni jëkkër ak jabar li tax nag ba dee njaay def ñaawteef bu ni mel nee ñu dara indiwu ko lu dul boolu ceeb une boolu ceeb boobu koy am na lu làqu ci ginnaaw moom daal ndaw si dafa lank ne du ko yóbbul ceeb ci noonu la jàppee ndaw si yóbbu ko ci àll bi wiyole ko ba noppi jël jaasi dal di këtt ñaari loxo yi waay waay yo soxor moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw korona la wax rappeur bi di dof nday mi nekkoon nag te génnoon jël doon def ay son di sensibiliser ay waayam ngir ñu bañ a def leen yóbbooti jël moom ci boppam delluwaat na jël nga ni ma artiste rappeur bi di Dof Nday xaalisam dafa réer naka noonu mu jiñ ko frère yamul ci jiiñ gi mu menacé frère am dina ko faat hëpp low tey nee nañu gannaaw bi mu ko menacé ba noppi dof ndey daa jël yérey bi dal di koy taal voisin yi nag bi ñu gisee ne musiba mën na am ci lañu saisiré police bu Grand Yoff naka noonu police ay dafa descente dal di koy teg loxo placé ko garde à ba mujj ko defeere moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona la wax ay waay nañu xoolaat suñu système éducatif bi système éducatif bu échec rek kay wane li yi ay élèves yoo xam ni tuuma seeni professeur ay élèves yoo xam ni caxat-caxatee bërëb yi ñuy sàkkoo xam-xam ay élèves yoo xam ni xeexoo ba bakkan di ci tëdd cay mim réew mani la xew ca ikaat doy na waar laa wax ab étudiant la fa jàpp ci wàllum agression étudiant bi nee ñu bu nekkee bi université ab étudiant lay doon waaye bu génnee ci en fii jikko doonub agresseur étudiant bi daal paakaam la yor ànd ak yeneen ñaari moroomu agresseur am songo ab agent teeru bi ak benn collègue am fekk ñaar ñooñu ñu ngi doon xaar ab bis ci arrêt bi nekk ci corniche bi nekk ci buntu université ndakaaru naka noonu ci lañ leen songe ne leen nañ leen jox li ñu yor ci noonu ñaari victime yi génnee ñaari portable yi ñu yoroon xaalis daal di koy jox étudiant bi waaye nag heureusement ab policier moo ci yem <laughs> waaw góore waay ci la leen toppee ba ne niib étudiant bi daal di koy teg loxo étudiant bi mu ngi wuyoo ci turu MB ba fi mu ne jugé nañ ko ca flagrant delli daan ko ñaari atu kaso yoo xam ne juróom-benn weer yëpp da koy tëdd ay waay jàngi leen ngeen wër di agressé moo tax ma ne jàngoro ji dal mi moo gën a graw corona la wax la xew ca collège waan doy na war moom dal élèves yi lañ ne école tëj na xale yi caxat-caxate école ba dëggate blouse ya daggate kaye yi ci cour bi salfaañe école bi tasaare ko yàqate ko yàqat waay waay lan moo dal suñu élèves yi naka noonu ñu naan deete waay lycéen ya ca Sinja daal di dem fekk seen salle des prof daal di koy taal waay xoolaat leen njàng mi ci réew mi moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona laa wax étudiant ba fekkoon prof professeur am taxaw na ca université bu ndakaaru mu fokkati microm yoon teg na ko loxo waaw góore waay étudiant bi mu ngi wuyoo ci 3F moom daal ca faculté des lettres et sciences la fekk professeur taxaw di def cours mu yegg ca kaw fokkati micro bi étudiant bi master 2 en philosophie la doon def waaw ma ne ñi ñooñu nar a jiite ëllëg ma yokk ci nag ne philosophie comme am na sañ-sañu sikki sàkka yàlla est que philosophie mayul étudiant bi mu yegg ba ca kaw fekk professeur am taxaw mu fokkati micro bi ay waay xool leen ñàng mi ñuy ñàngale ci réew moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona la wax la xew ca bunkiling doy na war ab soxnaa fa ray borom këram laa ilaha illallah soxna si def lu ni mel nag mu ngi wuyoo ci turu dees ndaw si nag bi mu faatee jëkkëram ba noppi moom ci boppam moo yóbbu boppam gendarmerie hmm, boo gaawul woon xam jëkkër ak jabar yooyu nag nee ñu ci xuloo xeexoo la ñu dëkkoon guddeeg bëccëg looloo mu jox xewaat ci seen diggante ñoom ñaar ñu xuloo naka noonu ci la dees jëlee paaka jam ko jëkkër ji ba mu jaare fa ñàkk ba kanam cëy mim réew ndaw si nag nee na ci kanamu attekaay bi légitime défense la doon def ndax jëkkëram ci boppam dafa yoroon arme ma ne ko yow de am nga woyu fay ba mukk ray sa borom kër moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona la wax corona bi nag fi mu toll mu ngi nay ci réew mi ba na waa SAMES alerté nañu de nee ñu bu ñu wattuwul troisième vague bi mën naa jur musiba ci réew mi ndax kaay ni ñu yokkoo virus delta bi moo tax te propagation dafa gaaw hôpital yi fees na te it malade grave yi bari nañ mooy la ma waxoon rek ma ne nit ñi fokk ñu jël seeni ay responsabilité comme ni ñu yilif nanguwuñ ñoo dimbali mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje samedi ci yeneen xibaaru buzz